mbokk yi yéen ñi am jafe-jafe ci seen wàllu wér-gi-yaram mën ngeen a ñëw fii ci géejawaay ci arrêt Double ci sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Fall mu jàppale leen ci seen wàllu jafe-jafe ak seen wàllu wér-gi-yaram jokkalool ak man ci numéro yi may bind 77 646 41 21 wala 283 98 69. boo ñëwee dina la seetal te lépp lu muy fàcc ci alxuraan la ko teg. ci feebar yi may bëgg lim nerf sciatique hémorroïde ak yéen ñi am jafe-jafe ci kàttanu sëy wala ngóor yéen ñi bëgg a am jëkkër. te am faru rab fàttewuma leen jigéen jiddawoo am doom walla siti maa ci gaaw yéen ñi am xeetu gémmiñ te bëgg bàyyi tux ak naan jëlal sama numéro 77 646 41 21 jigéen buy sëy te taw am doom ak ëmb yu yàqu yi ak jafe-jafe yi muy làmboo kist wala fibrome muy farurat yéen ñi bëgg tukki te am jafe-jafe ci wàllu kayit yéen ñu tukki ba pare am ay jafe-jafe avancement ci seen liggéey ñii nag bu leen fa kenn jiitu muy jigéen ñuy sëy te seeni jëkkër loxo bi dafa dëgër ah mbokk yi ak Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall jaaxle jeex na